dafa nit ñu tasaare tawta nangam boobu bu xam ñaata cee Gambian ñaataa cee foreigners all ba pare ñu xam tamit contact tracing bi kii ki gë jëlee Bakaw fan lañ ko jëlee ci biir Bakaw ñooñu dañ war a dem testing ñam association loon dañ war a dem testing mm-hmm. all right gannaaw loolu dëkk bu tuuti bile suñ toogee ba ku nek ci ñun di ngagna ki ki wax wax ji affaire bi bëgg melni politique lañ ci bëgg duggal té politique bokut politique bokul man lima ma ci politique moy kéra bañ électioné kéra la politique jeex kéra bañ électioné ba xam kanay lan kéra la politique jeex man loolu laa foog politique de man noonu la ko tié li ci dess du politique li ci dess liggéey la ñu ya ba politique jot ñu dooral politique waaye léegi dem marché sax dañ ko politicise pour lan feebar ba ñooñu too distinct a ah, parlement nekk fa war a te duñ tëj ak dinañ tëj ñun lu ñu uti ci loolu docteur yee fi am seen làmmiñ fi mu toll nii nan élimaan yi noppi labe yi noppi yëpp noppi docteur yi wax su docteur yi waxee ñu seet lañ lañ ca wax laaj leen la ngeen ko waxee nii naka ngeen bëgg ñu defee ko docteur yi advise ñu ñoo def international yi bu ñu demee ba tàng huit dinañ am wax dëgg yàlla ñu laaj di bal ci xëy kenn musuta lebbeñ nangu sa drapeau lebbeñ nangu sa drapeau amut xëy ban dëkkaa fi leb aduna ba mu juddoo benn tey nit ñaa ngee leb tubaab yaa ngee leb dëkk yaa ngee leb ñoom it ne ñu ngee lebalante lu tax ñu ni ka leb ci OAU xaw ma naka AU nekk ci UN nit ñaa ngee leb nañ leb ba pare laaj assistance technical assistance comme bu njëkka da nga am fi docteur yi Ghana Ghanien docteur yi Freetonien docteur yi Kiban docteur ni américain docteur ni anglais lu tax ñu ñun dañ indépendant waaw waaye na ñu ngi ci àdduna bi ba tey ci àdduna bi lañ bokk nañ jëriñoo technicien su mel noonu dañ ko daan jëriñoo lu tax ñu ñu xëy suba rek noppi déedéet nañ def lañ daan def expertise ñun dañ war a def suñ inventory xam lan mooy suñ soxla pour Covid bile ñu jox ko dat attention bàyyi wax wax ji na moo tax li dee fii ci ci fan yi doy na waar da ngaa seet ku mel ni Tafsir Gueye niñ ko soxla dañ ko soxla tigi naam lii rëy ko leneen a ko rëy waaye amu doon joti dem lopitaan léegi kenn du dem lopitaan sooy dem lopitaan sax doo duñ nangu boo demee di wax duñ la déglu Covid bi dafa tax ba lépp léegi marché bi sax Covid ga faa xew marché sooy waxtaan ji kobo soo ñu laa laaj kobo bu am Covid ga kobo bu amul Covid lii mooy lan non man mënu ma understand loolu te dafa dafa dafa dafa nécessaire alright ku mel ni Alaaji Aliou Mbodj liñ fi ñàkk ci ci jamono ji rek li tax ba ñuy ko tudda mooy amuñ sax ñun sago pour dem dej leen niñ leen waroon a dëjee amuñ sago pour dem ci seen dëj am nuñ leen seetee ji am nuñ ko defee ba mu joxe lan moo waral ñu ne Covid bi kon Covid bi daf ñu dugal ci loolu dafa tax ba ñun àndaatuñu sago doom yu baax yooyu imaam tafsir maamam moo ci kilifa yi sampoon Banjul fii fii euh, number number eight Passy fii maamam maamam ci ki jur yaayam ci fii Passy Beraan number eight ngéyeen gi la ñoom bokka be yaa taala géyee ñi la ak tafsir géey bokka ndey ak am fi njëriñ lool naam yàllaa ñoo waaw waaye yaa rabbi yàlla na fi géej munuñoo taa munuñoo stop dee yi kenn de déedéet dee moom foog mu am boo ko gëmul sax doo waaye dañ tiit ñàkk gu mel ni comme Aliou Mbodj bu gàtte bi rek doom yu baax yi lee moo maa waxoon naa ko ci jumaa ji kera ba biir yi dee ma ne àddina bi yëpp fi ñu toll tey su ma waxi ba maa ngi ko soog a gis mbay ma dama ko dem Kaolack ñu waxtaan ma mom mune ma ba gan nga geju fa mané ko ban gan mam mune ma dé mané ko xey bo bu di ñangé dé mam ngay maam mune ma hé dé dom déglul mune ma kera bu de ndaw ndaw xalé bu ndaw kera bu ndaw dé mune mune dé gan la ma ha, mune wa kéra kera bu sax sax yi ka ba dé kera gan kera dé gan la ah ma jëlé li góor gi wax bon dé gan la fan yi fi dé metti na dé da sét lu melni Omar Sada jabaram Ya rabbi yalla fi li géej ku mel nonu xale bu mel nonu ak jabaram ñu suulandoor leen doy na bàyyi xel de doyna bay xel bi tay da nga wax nit ñu nga genn nga ne eh, yuusal mas. mu naa ah do mu seen yëf non noonu sa sila yi politique buka ci dugal dañ bëgg UN gaay boy bëgg UN jox ñu xaalis dawul HO jox ñu what is that ñun dañu war a jox parce que ñun dañ contribute ci WHO dañ contribute ci UN ñoom du ñaanaan suñ laajee sax dañ ñu war a jox parce que ñun dëkk bi ñun tamit membership bi dafa tax ñu daf ñu qualifié pour ñu am li keneen di am foofu million yi ñoo jox keneen nañ ñu ko jox ñu tam ñu fas ñu réew mi dëkk bu tuuti bi nga xam ne amuñ capacité ñoom fii ñun dañu waroon dimbale balaa moo xew sax ñu wàcc si fi am nuñ fi def pour garanti ko bu fi xew mm-hmm. Mm-hmm. bu yàlla atee nag mu ñëw xew fi dañ ñu war a jàppale toog fii naan dawul ejo ak UN waaw su ebo dañu war a jox nit di diw mën a wax ba am ñun itam nañ wax ba am waaye mu ngi fee ñëw de parce que mu ngi mu ngi tigi du jàmma de góor gi Ablaye mbir mi du jàmma diw dee na red moo ko suuli loolu man léegi laa ko soog a dégg de léegi laa soog a dégg loolu ñu ne diw dee na doom bu baax bu mel ni diw dee na doom bu ganaka dëkk bu mel ni diw dee dëkkin laa la wax doomi réew mu mel ni diw dee na kala ko sul ne Red Cross kenn dem na benn nit ak ñaari nit fukki dem jiite ko rek bàyyi ko Red Cross ñu dem suuli ko loolu du fi daan xew loolu xayangoog de yal nañu ci yàlla génnee man nag Ablaye li ma gëm mooy ñu góorgóorlu xew na xew na ba pare lan la ñoo def ndax suñ borom bi génn nañu ci waaw li ma bëgg a jëkk jiital mooy élimaan yii suñ wax toujours rek maa ñoom dañ ko dee waxtaanee nit ki bul toog gis sa garab feebar bi di la te xam ne bii la diw diw lii la naan ba wér yaa ngi janoo moom de ko seetaan nga ne dafa weex du ma ko mun a naan munu maa gëm loolu de jaamu yàlla daf ñu war waaye ñun jullit ñu gëm ne am na nuñ mel ba tax nattu bii dal ñu yaa rabbi ndem dañ tooñ bem dal ñu ndem dañ doyadi it wala dañ gàtta xel wala dañ manqué ba lii dal ñu yaa rabbi ñu ngi ñaan nga jéggal ñu fasabbih bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba foog naa ne ñu ngi ko dee waxtaane maa yéen ne nañ dellu ci moom ñu tuub ñu jéggalu ñu wàcc ba pare buñ ko def jëkku naa fekk yàlla ñu gën a xam suñ bopp de ndax dañ ko def mu gé génn ñu bàkkaar bi déedéet moom xam na ndax ñii liñ def nii wala li ñu wax dañ ci déggu ñun dañ ci déggu ne caalit nañ yaa rabbi ñu ngi laa ñaan wax dëgg yàlla munuñ ci dara lu may jéggalu nga jéggal ñu ci biir jéggalu nga jéggalu nag liñ ci boole mooy ñu dégg a wax ndax suñ jumaa yeeg jàkka yi la yëpp ubbi jàmm am ñu delluwaat ci marché bi di dox guddi di tëddi di ñëw ak a jàppante ci jàmm di dendoo waaye léegi social distancing bi sax nit ñi nangootuñ ko ah mus nañ la oo ne la eh, dama tëddi fa loolu gën na ca ca fii mm-hmm. xaw ma ca naka Etiwan ku koy laa la gëj a dégg demal tëddi bàyyi foos bi ba ñëwaat léegi léegi ku koy nekku fi bii beneen la mm-hmm. bii demal tëddeeti te nakuloo nga dem tëddi dëkk bi ne selew mel ni bàmmeel xam nga làkki bàmmeel benn la làkki bàmmeel mooy muut foo mhm. demee ci bàmmeel yi benn làkk rek fa nekkaat tekk boobu mooy làkki bàmmeel doo dégg dara muut rek réew mi dëkk bi noonu la guddi palanteer yi mbedd la am nit romba sax du ma leen gis lampay duñ taal nit ñi ne teg waaw ñëpp de muut bon li ñu waar nañ tuub dellu ci yàlla benn ba pare garab yi ñoo sant ci suuf garab yu yomba garab bu ma gëj a dégg bu yàggul nii wax nañ ma ko te am na njëriñ muy mbantamaare mbantamaare bii xobi xobi ajana ñu bari xobi ajana la ñoo xam mbantamaare noonu looy turam tigi mbantamaare boobu ñu ngi ko jëriñoo toog ba katooy ka Amérique di ma fàttali ne ma papa bul fàtte mbantamaare ma ne mooy xobi ajana xobi ajana ma ne ko wax nga dëgg de ndem ñun ña nekk Amérique léegi ñooy fàttaliku yooyu ñun fii fàttaliñ ko bu yàggut nii rek su ma benn ku dëkk Angleterre ne ma limon ah, limon beeg eh, limon beeg liñon beeg laaj beeg eh, naka lañ ko ooyee eh, lem bee yile ak xorompole yi yëpp ko clove yii yëpp nga gis ni lu yombala luñ daan gis bu yàgga bu du tey luñ xamoon la du noonu waaye léegi lan moo waral nañ ca dellu ba pare Ablaye eh, suma maas gi dañ bari de mbir mi doo ko jaayee dëgër boppa du ci boole wax dëgër boppa waruñu nañ déglu docteur yi benn nañ sàmmante sàmmuwante xam nga li indi sutura sutura ñetti mbir la foog nga xam ko yow da ngaa njëkk a xam sutura ba pare nga suturaal na suturlu xam nga foog nga xam sutura lan mooy sutura nga xam ko suturaal nit dégg loolu sutura da nga ko xam ba pare am ko ku amul sutura nag neexu da dëkkal nit ku amul sutura baaxul loo indi mu weddi ba pare lu lu gisal lu lu mu siiwal sutura nag moom ngaa joxe ñu delloo la ko da ngaa sutura suturu wu yow ni nga suturaw mooy nga suturaal suturlu li nga joxe moom ngaa jotaat réciprocité réciprocité noonu la ko ci tubaab ma bugga wax ne dëkk bi dafa tuuti tuuti boo xam ne ñun moytu wante yomb nañu waaye képp koo xam ne it yaa ngi gan ak ganale la tax ñëw ci dëkk bi da nga war ak ñun mm. ñun ñun mi nga xam ne fii lañ am amuñ feneen emal sa dëkk emal la la indi nobu be jàll beeg gaa yi daw jaar ci biir àll beeg dugg motocycle ak war mbaam di dugg si réew mi pour ñu nga labal ñu ji feebar loolu gan gu ko fi def kat baaxuloo de baaxuloo de te wax nañ ñu ne nga xew moo tax ñun ñu bugg nag ñu am analyse si eh, affaire yi am nañ ten yu feeñ ten yi Gambien lang eh, Malien nangam Sénégalien nangam Ghanien nangam nangam nangam ñu xam ñan ñoo nekk nii ak ban boor lañ jógee dañ ko war a xam parce que it's not enough nga naan ñu nga dem ci rajo bi nañu eh, eh, test nañ two thousand one hundred two thousand eleven moo ci positive eleven bi rek nangam a ci négatif léegi li ci lopitaan bi nangam la moo dee doyul loolu loolu is not explicit at ñun dañ bëgg a xam fan la ñoo ñu jógee dañ ko bëgg a xam ndaxte te jii gan gi ñëw ci kër gi man dëkk ak moom gan nga deful dara man mi dalal man la gan nga deful dara de man mi ko dalal man la gannaaw dañ da toog ci jamono mbas moo xam ne ku nekka am benn béréb ñun ñi dëkk a Banjul sax tey jii ñun ñu bari du ñoo seeti wante léegi waaw lu tax na bon gan di war a ñëw biir lu tax ba pare da ngaa ñëw te ne yow loo xam ne wax dëgg yàlla nga fekk ñu mas nga naan xewu fi man ci boppi ko ñi persévérance bii laa toog di xaar Malick bii ñu war a ànd ma ak ak Lamine ak Moodu am lu ñoo waxtaane am ci kenn ci benn nangam bugguma jaar ci dëkk bi mu jógee na affaire bi dara nekku ci dañoo wax rek buggu ci lay lay politique la ndaw si jaay fii dégg na la ma ko tontu dégg na ko waaw taxani forñe yi ci ñoom la taxani forñe borom amatul lu mu wax waaw waaye ñun fii dafa am ci woyi lël yi ñu daan woy nit ñi dañ toog ba fàtte woyi lël yi lël yi parce que dégg nga daa wone tubaabul taabi teen tuba ba nga waree mbaam wàcca mbaam tob gëlem tob ñey daanu ci tuba tuba lekk la déggu la jooju dañ delluwaat ci léegi yu seen wax yooyu waaw ba nga waree mbaam wàcca mbaam toog gëlem toog ñay ak mun a toog rab yooyu lu leen ëpp amul di bale gën a gudda bii gën a rëy nga mun leen a toog nga top leen daanu ci tubalu ndaw mu lekk la adduna bii ñun dañ bugg a gan lool waaye gan daf ñu xeeb te noonu warul a dem warul a dem ganale baxna lol, waye eh, dalal ganit baxna toro waye dalal ganga yi dafa sof ganga ganga gan du ben waw ñene ñak ganga lañ duñ gan nga ñëw ci rew mo xamne fa nga amé ñu ne bul fa dem nangam tej nañ nangam def nañ nangam ngay boroxlu pour duga a ah, yooyu tam ah, <laughs> nga yóbbu fa loolu xale bu jigen bi indi bi am eh, eh, covid bi ci bañul Angleterre la AQSEL la jóge loo fi loo la lu la indi loo lii fii ñun amuñ ko woon di waaye ñun itam ñu toog nag multiplication bi di dem ñuy seetaan rek gan ñi di indi ñuy seetaan gan ñi di indi ñuy ba yàgg ku ñëw mosal ma ma mosal keneen mhm. keneen mosal keneen ba léegi nekkatul gan ñu ne na na mosalante moytoo ñu war moytu daf ñu war bugga sa boppa hey suma boppa ma la gënal du bañ naa la de suma boppa ma la gënal du bañ naa la de woykat baa ko wax suma boppam ma la ginaal du bañ naa la wóor na yàlla na suma xarit nga woykat bee ko wax bu nit ñi woyatee nañ ko déglu moo tax artiste bi an agent of change mooy kooku mooy artiste agent of change du artiste yi léegi léegi yi ne me ni ay lu ma xamul artiste tigi tigi kuy ñëw pour wecc ñaawi àddina la indi wax ju rafet jëf ju rafet melokaan mu rafet àddina rafet rek nu mun a dem waa jamono ji ñu toll nii Covid bii li ko li ñu mun cee dimbale moo di nañ dégg a wax kilifa yi nañ ñu àtte ci li ñoo dimbale ëllëg buñ déglu waxi kenn buñ seet kenn lii buñ ko defee mu toroxal ñu buñ ko nangu tëj leen school ñu tëj tëj leen jumaa ñu tëj bu kenn dem fenn bu neen tëj leen marché ñu tëj képp di seet nu ñoo boroxloo pour lii génn fi doo ko tëj ba pare ëllëg ñaata dee nga naan diw dee na lay lay la la yaa gën a doon naafeq kooku baaxul ndem li am njëriñ nañ seet la am njëriñ ñu wax ñu ko ñu def loolu from parliament down am yi responsibility ñoom from parliament down réew mi dañ la ko dénk pour bu déglu waxi ku la neex seetal li yoon seetal li yoon waaye bu buggee dëkkee la la neex ak kala neex rek waa yow fu jëm bon ñun islam dafa eh, eh, dañ dañ ko sol buba moo tax ñoo ne islam ñun jullit ñoo am liggéen ñun jullit ñoo am liggéen waaw ñun ñoo am liggéen lan a gën islam waaye ndax islam am na ñi gën foofu la wax ñu ndax islam am na ñi gën fa la wax ñu ne de covid bii lim lor ci jamono ji ci doomi Banjul ñu am njëriñ tey ji Banjul Muslim Elders ñu ngi ba tey jii ñu ngi wax dëgg yàlla am boobu métti ci ñàkk Aliou Mbodj eh, bu ñu mayee ab diir ñu mën a daje fi waxtaanante xelalante yoo eh, xam ne dafa lembee àdduna xaasatan suñ réew milim tuuti mile fitna boo xam ne yàlla daf ñu ko nattoo saa ñu waxee imaam rek ci wàlli islaam lay waxe suñ borom subhaanahu wa taala mu ngi ci wax ci alquran ne wala nablu na ko mu ne wallahi dinaa leen nattu kadu boobu dañ ko war a seetaat lool wala nabluwan na ko wallahi dinaa leen nattu léegi nag su nattu ñëwee mu ne bi cheyin min al xawfi wal juuci wa naqsi min al amwali wal anfusi fii lañ toll mu ne lenn rek laa leen ay nattoo ci ay tiitaange ak ay xiif ak ay mar ak wàññi bakkan foofu lañ toll ci mbas mi de islam dafay ànd ak jamono bu ne ak xew-xew bu munta xew islam daf mu ngi ànd moom amul lu mooy bàyyi gannaaw bu dara du xew mukk ñu ne lii dafa xew ñëwut ci alquran ma farat fil kitab min shay yàlla ne ci alquran karim bàyyiwuñ dara ci alquran lépp lañ isi jamono bu ne lu munta doon lu munta xew islam dafa njëkkoon waxoon na ko mobile yi leeg aéroplane yi leeg lépp loo xam ne xew na rek islam isi woon na ko kon ñi jamono di dem jamono di dem ba lii xew imma nattu bi ñun ñoo ko sabab lu suñ bopp wala suñ borom moo ñu ko nattoo rek xam suñ ngom fan la toll su amee nag war nañoo delloo suñ xel ñu dalal suñ ngom bu ñu waal dara suñu pas-pas may wax suma may wax ci suma mbokki eh, eh, eh, jàngkat yi islam wala suñ mbokki jullit ñi ci in général toog rek ne toog tej nañ jàkka ji toog di wax wax bu ne di ko ñaawlu mbir mu doy war la dañ islaam walla wala lu ñoo gom ba ëpp waa Makka gom loolu war nañ koo seetaat lool bañ waxee ne islaam dafa ànd ak mbir mu ne dema dem ba suma onkul wax na ne dafa am ñoo xam ne génn ñu àdduna seen génn ni àdduna metti lool ñu leen jébaluñ ñu ko ñu wax ko toppal ñu ko war a toppatoo ngir li len dal wax na ne imma ñu ñoko sabab lo suñu bop war nañoo delo suñu bop si yalla ñu tuup jamono di dem ba ñu ne gor ak gor nañ sey ndax suñu diine nanguna lolu musuñ ko koo ci history wala amona sax ci history ci alquran waaye ñooñu fan lañ jaar ak suñu borom subhanahu wa taala ban façon duma la len duma ekati dekk bi yëpp ak seen suuf si yeeg seen néeg yëpp ba ca asamaan sax ñëpp a ñu waa asamaan yi gi ngi dégg seen coow seen woy seen jooytu mu déppaleen ci suuf taw ci soñ ko balaa mu leen a dépp ba ñu àgg su mu ngi taw si ñoom ay xeer safara dana gën a métti loolu su jamono demee ba góor ak góor ñu ngi sëy jigéen ak jigéen ñu ngi sëy munuñ ci dara waaye mun nañ cee wax kenn ku ne nga ubbi sa gémmiñ wax ko ngalla bu sax ci suñu réew mi ngir yàlla musal ñu lii bokk na ci yooyu immaas yeneen na alif laam miim hasiba naasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun wa laqad fatana alladina min qablihim fa sa allahu alladina sadaqu wa sa yaalamanna alkaadibin mu ne wallahi ndax da ngeen foog ne wax ngeen gom ngeen rek ma bàyyi leen noonu duma leen nattu ah kay dinaa leen nattu waaye kuñ nattu naka la war a def dafay dellu ci boromam yonent yàlla ayub ba ko yàlla nattoo feebaram ba ko hmm? yàlla nattoo woon yaram yëpp am ay ay sax mu ngi gën a sabbaal boromam mu ngi gën a jaamu boromam amoon am ay soxna am ay lépp lépp béddee ko yëpp jeex jeex tak ba mu dese moom rek ab benn soxna waaye lépp foofu lay gën a jaamu boromam ba sax bi ñëw ba mu laal xol bi wala làmmeñ ji ci la soog a hmm, bi ne déet bii lay jaamoo suma boroom kon kooku moo gom yàlla te loolu alquran ko nettali war na ñoo ñun ñu gom suñu borom subhanahu wa taala tuub dellu ci moom te sellal da yàlla dindil ñu mbas mil la nañ ko yàlla defal léegi nga gis ñoo xam ne seen bakkan a ngi rot ci biir lii de feebar bi islam dafa am ay excuse yi nga xam ne daf koy joxe te su ko joxee nañ koy nangu mooy ne kii génn na àdduna ci biir mbas mi jox nañ ko ñi lañ ko toppatoo ngir ragal ñun ki ko laal si ñun daf lay wàll su la wallee nga wàlli ñeneen islam mbir mi jaar foofu mu law te loolu la ñooy eh, daw dañ ñu ñoo war a fagaru balaa ngaa wala xoddekul balaa ngaa lakkale yii nag ci la kon nañ ko bàyyee ñooñu ñu toppatoo ko fañ mun a taxaw jullee ko baax na joxe ci exemple buuri Éthiopie bi bu mu dee ca Éthiopie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ca Medina foofu la taxaw jullee kii xoolal distance bi de continent to continent waaye dafa taxaw foofu jullee ko kon su fekkee ne kenn génn àddina ci ñii nañ ko mun a toppatoo ay jullit lañ ñoom ñi ko toppatoo waare Red Cross su fekkee ay jullit lañ nañ ko toppatoo suñ ko toppatoo pour mun ta taxaw julee ba distance bi nu sori sori baax na islam may nañu loolu islam may nañu suñu koy jullee buñ simmi suñuy dàlla ngir moytu jàngoro ji islam may nañu suñu koy suñu koy jullee nañ mas kaw nañ sori wante distance bi bi ñoo wax nii may nañu ko islam may nañu ne su fekkee ne lii dal na ci réew ngeen la waa réew mi bu kenn na dem feneen islam moo ñu santaane lii islam na bu kenn joge koo foofu feneen tam ñëw si biir réew mi li yëpp islam mooñ ko santaane islam mooy santaane foo foo munte ne na nga raxasu ba set wecc ak saabu wala ak eau ak loo ko mun a boole yii yëpp islam a ko santaane noon bala an nadafatu min al iman set gom yàlla la bokk inna allaha tayibun la yaqbalu illa tayiba yàlla ku set wecc nangu dara ci doomi adama lu set kon li yëpp su fekkee ne waa médical ñi nga xam ne ñoo toppatoo wéri seen wér gu yaram ji digal nañu nii mu ànd ak li islam digal nañ ko nangu ngeen la ñuy taxaw di coow ci wàllu jàkkay nañ bàyyi seeni xel mu bàyyi islam yi ñoo ko bokk gomuñ mukk fii duñ gom mukk bëggeen ak gom waa Makka du mun a am fuñ tej néegi yàlla bi nga xam ne foofu la yàlla wàcce alquranu karim bi ñu tëj néeg booba ne bu fa kenn dem ngir jàngoro ji mooy li yonent bi sallallahu wax rek bu kenn genn bu kenn duga mooy di same thing moom la ñuy islam la ñu la ñooy practice nii kon loolu yëpp islam santaane ñu yii yëpp ngir ñu mun a fànq suñu bopp lu ci gën a garaaw mooy su dalee kenn su demee dafay wàlleem bi dafa gaaw benn ñaareel bi dafa wàll njabootam kon suñ waxee ne tëj nañ jàkka yeeg jumaa ji nañ gom yàlla